الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم asalaamualeykum wa rahmatullah seen mbokk imaam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del si tey lundi 24 février 2020 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu audio numéro 126 ci sunu jotaay bi passé àndoon nañ gis lan moo doon xulru maanaam summeeku ci olof ñu àndoon gis itamit yan àtte la làmboo tey ñu fas yéenee waxtaanee beneen xeetu fase bu jéggi dayo moom itamit ñu koy wax liaan liaan ci wolof mooy rëbbo mu nekk fase boo xam ne cosaanam cosaanam li ko waral mooy ne jëkkër a ngi nii wax ne ah jabaram dafay dafay njaaloo jëkkër a ngi nii ne gis na jabaram muy mooy yàlla gis na jabaram muy njaaloo loolu kàddu yu mel noonu mooy sabab sëy bu tas ci anamu rëbboo sëy bu tas ci anamu liaan waaye laataa ñuy dugg ci àtte yi nga xam ne moom la rëbboo làmboo ñu fàttali rek ne ci lislaam wax ne jigéen na ngi nii dafay njaaloo dafay mooy boromam dafay moy yàlla loolu responsabilité bu rëy la mbokk yi même su nekkul sa soxna sax ndaxte ji nga wax joojule su nekk ne du dëgg dafa bokk ci juróomi ñaari bàkkaaru kabar yi nga xam ne dafay dafay sànq doomu aadama borom bi daf lay toroxal fii nga dee mu dugal la safara yàlla na ci yàlla musal di tuumaal jigéen ne dafay njaaloo te fekk ni loolu du dëgg soxna soosu kay ku jullite la ku ragal yàlla la ku màndu loolu dafa bokk ci juróom-ñaari bàkkaar yi gën a mag dafa bokk ci juróom bàkkaar yi gën a mag kon responsabilité bu réy la soo ne li may wax dëgg la li may wax dëgg la ki nettaliwu ma man maa gis ci samay bët charia ne la waaw yaa gis wante nag indil tamit yeneen ñeenti seede yoo xam ne ñoom tamit gis nañ yow li nga gis charia mu ne soo ñëwee ne gis naa jigéen sàngam mu ngi njaaloo mbokk yi ngeen baal ma sax ci kàddu bi waaye nag dama bëgg rek wax ji leer Hmm? mu mënoon am tur bu gën a oyof sax euh, euh, euh, kàddu yu gën a oyof naa leen naa jëfandikoo waaye dama bugg rek mu mu mu mu leer loolu tamit am na ci solo mu leer kon nit a ngi nii ñoo ne gis naa jigéen a ngi nii di njaaloo ñu ne la waaw yow gis nga waaye indil ñeent yéen ñeenti seede yoo xam ne ñoom gis nañ li nga gis charia nag gis la wax charia gis la wax de waxul ne eh, nga naan maa leen gis ñoom ñaar ñu dugg ci oto dem loolu loolu du preuve de ci charia wala ngeen nga ne maa leen gis ñoom ñaar ñu ngi dugg ci hôtel hôtel sangam joxe turu hôtel bi sax joxe rue bi joxe heure bi charia nee na charia dafay dàq charia nee na loolu du preuve nga ne maa leen gis ñu dugg ci néeg tëju heure sàngam ba ba heure sàngam ba ñuy génn itam gis naa leen charia nee na loolu du preuve de nanguwuma ko mbokk yi ak a jafee wane ak a jafee prouver prouver ne soxna sàngam jiw mu ngi njaaloo ci lislaam ak jafe ak jafe prouvé ak jafe prouvé yi ngeen condition yi ñu wax daanaka mënul nekk borom bi moo ko tëralee noonu ndax ndeysaan sutura yàlla dafa bëgg dafa bëgg sutura borom bi allah subhanahu wa moo tax mu tëralee ko noonu di nga responsabilité bi nekk ci tuumaal jigéen ne mu ngi mooy su nekkee ne ñeent seede yooyu la charia wax ne mënoo ko indi su nekkee mënoo ko indi ñeenti seede yooyu charia daf lay daan ñu dóor la juróom-ñetti fukki yar quatre-vingts coups de fouet la la la di daan su nekk ne mënoo indi ñeenti seede ak yow muy juróom te su la koy dóor ca mbooloo ma lañ la koy dóoree nit ñi di nit ñi di seetaan en public loolu la charia daan ki nga xam ne dafay tuumaal jigéen te mënu ko prouver prouver bi daal mooy yow ba nga ne yow gis nga ko na nga indi yeneen ñeent yu gis yow la nga gis ca jamono ba nga koy gis itamit yi da ko bokk gisandoo soo ko mënul charia ne dóor leen ko juróom-ñetti fukki yar léegi nag su soxna si nga xam ne moom ngay tuumaal su nekkee ne sa jabar la sa jabaru bopp nga ne moom daf gis nga ko moom muy moy kooku moom dafa am ay atte dafa am ay atte yoo xam ne borom bi allah subhanahu wa taala ci boppam moko wax ci suuratu nur suuratu nur moy surat 24 suuratu nur surat 24 ci aya 6 7 8 9 ci aya 6 7 8 9 ci la borom bi allah subhanahu wa taala indi atte yi nga xamne mom la teul ci jëkkër joo xam ne mu naan gis naa suma soxna muy moy yooyu itamit jëkkër joojule yow jëkkër joojule borom bi allah subhanahu wa taala daf indil ñeenti seede yu gis li nga gis yow jëkkër ji ne nga gis nga borom bi mu ne la indil ñeent seede yu gis li nga gis yow jëkkër ji su nekkee amuloo seede borom bi allah subhanahu mu ne la kon da ngay waat juróomi yoon dangay ngay juróomi yoon ñeent yu njëkk yi nga waat ne gis nga sa soxna muy mooy ca juróom ca juróomeel ba nga wax ne su nekkee li may wax du dëgg yal na ma yàlla alak yal na ma yàlla toroxal yow jëkkër ji soo waatee noonu ba pare borom bi allah subhanahu mu ne soxna si dégg nga sa jëkkër li wax loo ci wax loo ci xalaat su soxna si weddee su soxna si weddee ñu ne ko kon nag yow yow itamit da ngay waat da waat juróomi yoon ñeent yu njëkk yi nga ne yow soxna si. dangay waat ne suma jëkkër gisuma may moy nga wax ko ñeenti yoon waat ko waat ne maa ngi waat di waat ne di dëggal ne suma jëkkër gisuma may moy nga wax ko ñenti yoon nga waat ko ñeenti yoon te juróom-meel ba boroom bi allah subhanahu mu ne soxna si na wax su nekkee ne suma jëkkër wax na dëgg gis na ma may moy yal na meru yàlla wàcc ci man gis ngeen mbokk yi su dajee boobu xasee ba am su janoo boobu xasee ba am ba jëkkër ji waat jabar ja waat ca jotaay ba ca teew ba ci jotaay boobule see ba fa la tase fa la ba tassé wat yañ wat ñom ñaar mo tas bi té tas bobu nak mbokk yi abadan diamond la la bobu da fay tass abadan diamond, nyar ñaar ñu rëbboo wat comme niñ ko waxé ni ñom dootu mëna té muk muk muk muk muk muk muk muk jaxna jaxna bañ nañ ko sax ba ci kaw loolu jigéen ji dañ ko ne sax léegi yow soxna si doo sax jaat sax jàpp idda faf jinga kon sëy boo xam ne mu ngi tas ci anamu rëbboo moom soxna sa du sax jàpp yedd amul idda su ko neexee ca bés ba bés ba bés ba bés ba su gisee jëkkër mun na mun na sëyaat mun nañ ko ko may ca bés ba même parce que idda moom tegul ci loosam ndax ndax gravité bi nga xam ne moo nekk ci ci ci ci ci xeetu passé bi di di di di rëbboo di ñu koy wax liaan kon mbokk yi loolu lañ indi woon tey ci beneen xeetu passé boo xam ne moom moom yal na ko yàlla dàqal bépp jullit moom musiba la xeetu xeetu këpp xeetu passé bi moom moom yal na ko yàlla dàqal bépp jullit wax dëgg yàlla yal na yàlla ah, sàmm sëy yi yal na yàlla génne say seytaan ci biir sëy yi dëgëral sëy yi defal leen sutura سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم